vraiment situation bi mooy li nga xamante ne nii moo am jifir tey jii muy situation boo xam ne lu garaaw la état war a taxaw nag jublu ci régler ko mu jeex féete côté muy problème mu fanaan dina tëj du tëj ak ñi nga xamante ne nii ñooy mool yi nga xamante ne nii ñoo nekk fii nii di moolu fele-fele yi ñoom ak moolu gaalu ndaw yi ñoo nekk fii di am problème yoo xam ne ay nag du yem ci bopp borom parce que li nga xamante ne nii mooy euh, oto yi nga xam ne mareyeur yi ñoo ko moom yenn oto yi ñu ngi toj seen pare yi bon affaire bi daal garaaw na doy na waar lool lool lool lii mooy li nga xamante ni moo am jigéen tey ji nekk situation bu doy waar. ci nekk ci nekk ci ay soldat taxi ma salaam ma jaay fii mais li nekk ci soldat ma jaaxal vraiment vraiment c'est grave lii moom état bi war na ci taxaw wax ci une bonne fois mu régler féete côté lii mooy li nga xamante ni tey ji moo am jifir entre diggante li nga xamante ni nii mooy moolu njët ak moolu kii